jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite seen point com dal leen ak jàmm ci seen pré seen chaîne préférée di am mbégte ak kontaante di leen ci retrouver rek euh, saa yu nekk tey nag ñu amat le plaisir jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy euh, Serigne Mbacke Ndiaye nekk ancien ministre ngir waxtaan ak moom lépp lu ñeel wàllu actualité fii ci réewum euh, Sénégal monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci disponibilité bi. jërëjëf maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk internet surtout sénégalais yi nekk bitim réew di leen nuyu di leen jaajëfal di leen jaajëfal yéen tamit ndax liggéey bi yombul mais xam nañ ni yéen a ñiy béy seen waar ci tool bi donc vraiment ñu leen encouragé bu baax a baax. Euh, merci beaucoup euh, monsieur le ministre xëy na nag euh, waxtaan bi tey ci njëlbeen bi. dañuy wax ci li nga xamante ne ni euh, nekk na xew-xew euh, fii ci euh, Sénégal gis nañ ne jamono yi ñu weesu je dirais même lundi bi ñu génne nii ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck nekk ab taskati xibaar tegoon nañ ko loxo daal di koy rek jiiñ li nga xamante ne mooy diffusion de fausses informations c'est vrai que ni jamono ji il est placé sous contrôle judiciaire ñu bëggoon a xam tey jii nii balaa ñuy dugg ci affaire Batiplus bi ñu bëggoon a xam tey jii. nous sommes dans un pays euh, démocratique comme ni ñu koy faral di waxee mais liberté de la presse ndax tey jii nii mën nañu wax ne am na Sénégal. waaw da nga soulever question boo nga xam ni euh, dafa am ñaari pàcc bu jëkk bi mais mooy Cheikh Yérim en tant que personne di sama rakk di sama xarit ñu séq jàmm séq teraanga séq yu bëree bëree bëri c'est que ne keneen laa yéenewul ay jafe-jafe rawatina moom. donc bu fekkee ne am na jafe-jafe yoo nga xam ni dal na ci kawam euh, dama koy massawu damay solidariser wu ak moom dama koy jàppale aussi euh, te xam ni kii liggéey ci kaw li ngay liggéeyee ci nga mën a amee tolof tolof donc je pense que comprendre na ko bu baax na est-ce que démocratie liberté am na Sénégal je pense que loolu du question bu ñu posé liberté am na Sénégal wala déet du question bu ñu posé man mi ngay waxal yàlla def ma suturaal. ma bokk ci ñi nga xam ne ba liberté amul woon Sénégal ñi ngi doon xeex pour liberté am Sénégal ñu am benn rajo muy rajo Sénégal benn télévision mu nekk noir blanc benn journal muy Dakar Matin mujj nekk la Soleil booba nga xam ne booy def réunion da ngay nëbbutu yenn yi sax boo ko bind ay trac nga koy def bu guddee nga di ko sànni ci mbedd yi booba liberté amul woon Sénégal ñu toll nii Sénégal gi 2020 je pense que nit du posé wu question liberté am na Sénégal wala déet. donc dañuy wax ni euh, sa liberté yow mi ngi tàmbali fi sama liberté yam euh, beneen bi ci topp mooy nit ku nekk sooy wax dara man jàpp naa boog ni li ngay wax danga nga ci am firnde joo xam ni moo tax nga di ko wax. su fekkee ne am nga ci firnde boo ko waxee même bu dul ni looy génnee ci peut parce que ñaari yëf dafa am joxe firnde dafa am wax sa source dafa am. journaliste du joxe source am loolu ñun ñëpp xam nañ ko nous sommes des hommes de médias journaliste du wax ni diwama wax du wax ni fii la fii laa jëlee mais nag danga am obligation wu boo joxe benn information bu ñu la laajee nga mën information ba fii laa ko jëlee donc muy nekk loo xam lu wér la loolu gëm naa ni journaliste bu ci bu ci wéeru homme politique bu ci wéeru nit de manière générale ku ci wéeru même ku la fexeel dara du la mënal dara mais nag c'est pas parce que la ou bien man homme la wala député la wala syndicaliste la wala ministre la que damay wax loo nga xam ne aussi teguma ko fenn te kii wax bu mu fàtte mukk ni ki mu tudd wala ki mu tuumaal d'abord nit la ko moom man damay wax toujours ni bala ngay solo nit ki mbubu natt ko boo ko nattee ba xam tàng naam sedd na yem naam yemul jekk naam jekkul nga soog ko solal keneen te it ku jaar ci école journalisme jàngal nañu li nga xam ne sama doom ji di corombaar ba muy commencé journal laa ko jëkk wax man ko article boo bind bala nga koy publier dindil tur yi ci nekk def ci sama tur def ci sa turu yaay def ci sa tur def sa mag sa def sa rakk xool soo ko publier lan lay joxe nga soog ko publier professeur Cheikh Anta Diop dañ daan wax mu naan ñu dëgg su ànd ak saaga koy néewal doole nit ki li nga bëgg wax mën nga ko wax ci anam yu leer ñëpp xam ko te xëy na kenn ku ko dégg du ci am lu ko naqari damay lay wax ñaari témoignage yoo nga xam ne daf ma marqué sama àdduna nga baal ma rek ma dugg ma def digression suñu frère Habib Sy nekkoon ministre d'État directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade soxnaam dafa wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm ñu dem hôpital principal ci morgue bi sëriñ euh, euh, doomu alaji abdu taaw alaji abdu asi Si sëriñ Maodo di sama xarit di sama lépp ba may ñëw sax yaakaar doon sëriñ Maodo gisuma muy wax ba yàgg mu ni sama soppi bu li ci ginnaaw nag di ministre sëriñ Mbàkke Njaay maa ngi koy jox wàccuwaayam te di ko seedeel ni saa bu jëlee kàddu di wax kuy kilifa diine da nga koy sawar a déglu ndax doo dégg ci sa nopp la naqari xëy na dafa tomb ci man ma joxe exemple boobu mais li ma bëgg a wax rek mooy kenn ku nekk mën nga wax li nga bëgg a wax teg ko ci yar ak teggin teg ko ci dëgg surtout donc encore une fois li may wax ni ñun ñëpp ko bokk nag lépp lu doomu aadama ndax teg ko ci dëgg rek gëm naa ne dara du la ci donc encore une fois Sénégal c'est un pays de liberté liberté moo tax nga mën a wax li nga bëgg li li li nga bëgg a wax nga wax ko mais liberté aussi moo tax ba soo waxalee nit loo nga xam ne du noonu soit nit ki ci boppam man laa topp wala état bi mën la topp l'un dans l'autre Sénégal réewu liberté loolu kenn du ko discuter. ci wàllu liberté boobu bëggoon naa see bëggoon naa see ñëwaat te mooy que ni li tax ñu wax ko. mooy rek dañoo gis ne képp ku fi taskati xibaar fii ci Sénégal nga sulli lu jëm ci wàllu mbuxum corruption euh, peut-être nga dénoncé ko wala leneen lu ci ajo dañ lay jël tëj la ci kaso bi euh, kaaw Cheikh Yérim euh, tey jii nii mm, la logique voudrait peut-être que ni ñu considérer li nga xamante ne ni moom la wax daal di ubbi enquête pour xool ndax affirmation yi mu def ndax c'est avéré wala mais ils ont préféré ñu priver ko de sa liberté or aussi gis nañ ni ab journaliste bu ko neexee mu ne du wax ay source foofu aussi yaakaar naa ni problème dafay am buñ ko waxee ne danga war a génne source yi par force. bu ñu jaxase ay source source yi bokkul ak euh, euh, bokkul ak euh, ay preuve maanaam tey bu fekkee ni man dama ni diw bi ma nañ ko tëj kaso diw porte ma plainte ni ma kenn mësuma tëj kaso. man naa bañ a wax ni yow journaliste yaa ma ko wax waaye am na obligation génne casier judiciaire boo wane ne mës nañ ko tëj kaso ñaari yëf la bokkul parce que aussi ñun ku mu nekk ci ñun dañu am obligation leeralal askan wi source kenn du ko laaj nit wala kuñ ko laaj boo ko joxee waaye preuve moom nit ki dafa am obligation joxe ko loolu je pense que muy man muy sama morom ñëpp xam nañ ko loolu mooy mooy mooy dëgg gi donc loolu bu fekkee ne appliqué nañ ko je pense que problème du am. ku am sa source dencal mais boo waxee dara bu ñu la laajee parce que nag bu dul loolu dafa yomb su ma neexoon suba mu xëy ni la yow def nga nangam wax benn musiba ñu woo ma ma ni boo du ma joxe sama source bul joxe sa source waaye li nga joxe nag li nga wax nag danga war a wax fan nga ko teg je pense que loolu bu ñu ko defee rek jàmm am mais bu ñu créer confusion entre preuve ak source bokkuñu. en tout cas pour le moment ñu jàpp ne rek ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck il est placé sous euh, contrôle judiciaire cela veut dire que ni rek bu ko euh, yoon soxlawee rek pour les besoins d'enquête dinañ ko woo ñu bëgg aussi dugg ci beneen laaj te mooy que ni euh, li ñu ko tegee woon loxo rek mooy affaire Bati Plus avec la famille Fares xëy na du ñu dugg en détail ci problème boobu mais tey jii dégg nañ ci ay exonération yu bëri ñu bëggoon a xam Sénégal ci jëm boppam lan lay perte ci affaire bi li xam nga réew mi li ko yàq mooy kenn du di xaw ma te man lu ma xamul dama naan xaw ma bu fekkee dañu def exonération am na fu ñu ko teg ñëpp xam ne fii la ñuy teg pour def exonération ku ko respecté baax na ku ko respecté wul ñu teg la ci yoon man li may rafetlu dans tout ça mooy coow li yëpp su amee c'est parce que dafa wane ne état bi mu ngi def liggéeyam parce que bu gendarmerie defuloon liggéeyam les corps de contrôle l'État defuñu seen liggéey kon lii ñuy wax tey di kenn du ko yëg ba di ko wax donc le simple fait que ñu di ko wax tey ba mu actualité waru na ni ñun xel mën na dal. parce que bu fekkoon ni kuréel yi fi nekk defuñu seen liggéey kon tey lii kenn du ko wax maintenant exonération lan nañ ci perte lu ci dul perte wax dëgg yàlla je ne suis pas ministre des finances dëgg la war naa ci mën a gëstu pour xam ko mais gëstooguma pour xam lool lan lañ ci mën a perte donc mënuma ko wax yaakaar naa ni foofu leer na aussi xëy na rek dañuy xaarandi lan la bi di euh, euh, firndeel après <coughs> ñu dugg nag euh, ci wàllug beneen scandale boo xamante ne nii gis nañ ko fii ci réewum Sénégal mooy contrat Sénélec. ak Akile c'est vrai que ni euh, nekkoon na loo xamante ni nii euh, jamono ji euh, président Macky Sall dafa demandé à ce que ñu casser scandale ñu casser contrat bi parce que gis na ni peut-être c'est scandaleux ñu bëggoon a xam déjà un contrat boo xamante ni nii c'est jugé scandaleux bañ koy signé xanaa liiruñu contrat yi wala wala wala y a chose parce que. on se dit que quand même bu ñuy dem ba euh, signer un contrat boo xamante ni nii tey jii dañoo jàpp ne c'est scandaleux y a des préalables yoo xamante ne war nañ ko def est-ce que foofu tamit euh, amuñu woon benn euh, comment dire gëmmuñu woon seen i bët sur sur certaines choses yoo xamante ne nii waroon nañ ko étudier. xam nga Sénégal dañu bëgg wax ju rëy lu yëguñu ne scandale lan mooy scandale y a pas de scandale fii amu fi amul benn li ñuy wax nii du scandale. très bien très bien Euh, su fekkee ni benn contrat am na mu am ñoo nga xam ni gis nañu ne xëy na contrat bi am na ci lu jaarul yoon te bu fekkee ni tuuti information bi ma ci am xaw ma lépp mais tuuti li ma ci am ci information mel na ni kii nekk tey directeur général u Senelec te bokk ci ñi nga xam ne bëgg nañu ñu annuler contrat bi mel na ni ci jamono yooyu moo doon toogal Senelec ci commission ba nga xam ni moo doon liggéey ci mbir mi di def ay rapport di ko jox seen ministre de loolu ci information bi am loolu ci la bokk mais li ci am solo mooy bu fekkee ni dem ni loolu aussi vraiment sénégalais dañ ko war a rafetlu bu ñu demee ba am même donte benn sénégalais wala ñaari sénégalais wala benn société moo gis ni contrat bii kat du avantage du Sénégal mu teg ko sur la table ñu discuter waat ko je pense que li ci président def jàpp naa ne aussi ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu maintenant dafa am loo xam dafa may metti ndax ñun ñëpp dañu daan kaas naan préférence nationale liggéey bu fi am ñu jël ko jox ko ay tubaab. liggéey bu fi am ñoo jël jox ko ay français jox ko ay américain jox ko ay turc pour une fois benn doomu Sénégal ba nga man xaw ma ko xam nga turu Akile Akile boobu RFM ñoo tax sax ma xam mooy lan parce que dañu invité woon waa ji euh, grand jury muy expliquer lan la ci ay langue nationale la jël donc pour une fois mu am doomu Sénégal boo nga xam ni jox nañ ko contrat bu mel ni am na solo ci biir réew mi donc man li ma doon rafetlu mooy même bu dee ni njuum te daf ci am li président wax ne nañ ko xoolaat nañ ko xoolaat luñ ci war a jubbanti ni jubbanti ko moom mi nga xam ne doomu Sénégal laal ko war a teg ñu teg ko fa ñu mën a continuer def liggéey bi mais en tout cas man du ma rafetlu pour la première fois ou en tout mu am bariwul doomu Sénégal di xeex ba egg ci dara loo nga xam lu am solo la te ñun ñoo doon wax ni pourquoi ñu jox français buñ ko joxoon français problème bu ndox maa ngi nii tey problème ndox maa ngi nii nekk problème ci biir réew mi buñ ko joxoon français mbaa ñu jox ko allemand waa ñu jox ko américain kenn du wax wala wax ji bari ñu jox ko doomu Sénégal mu créer coow lu mel nii vraiment je pense que loolu man laa rafetluwul maintenant encore une fois du ma spécialiste ci question boobu yoruma contrat bi discuté wu ma ci mais en tout cas su amee lu ci war a jubbanti nañ ko jubbanti ci njariñu Sénégal mais suñ manee encadrer également doomu Sénégal boobu pour mu continuer di liggéeyal réewam moo ma gënal ñu du ko nangu di ko jox ñeneen. Euh, c'est vrai que pour une fois ñu jël ki nga xamante ne moom mooy amadu li nekk euh, njiitu la Akilee euh, jox ko benn responsabilité bi xëy na dañ koy rafetlu au-delà du fait nii jàpp nañ ne contrat bi scandale la woon et ñu gisaat aussi beneen scandale boo xamante ni tamit xaw ma scandale la ñuy wax xaw ma y a des gens yoo xam ne sax dañuy dem ba naan régime bi c'est un régime boo xam ne si scandale gouvernement bu bu bëri scandale la Euh, euh, Excelec bi gis nga tamit nu mu fa demee mënuñoo concevoir tamit ñuy jaay benn photo à 14 millions là là aussi c'est c'est benn photo à 14 millions là aussi beneen beneen beneen affaire la boo xamante ne nii il faut tamit ñu xamal Sénégalais yi lan moo tax de telles choses pourquoi ñu jël ay xaalis yu toll noonu di ko def ci ay contrat retourné waat daal di ne lii dañ ko war a kase wala dañ ko dañ ko war a dindiwaat loolu aussi il faut ñu il faut ñu xamal Sénégalais yi le pourquoi on fait euh, ces de contrat yooyu noonu. xam nga xam nga pourquoi contrat demee noonu encore une fois man yàlla bind na ma ne du ma wax loo nga xam ne wóoruma pourquoi contrat demee noonu mënuma ci prononcé wu ñaari yëf xam naa ko benn bi mooy euh, am na benn spécial war nga xam mooy Jacques Habib Sy dafa ay jamono. boobu ñu ngeeg problème mu sa sec le dossier des chantiers de Thiès ma am occasion ñu di ci waxtaan man ak moom mu ni ma un kilomètre de goudron pour joxe exemple li nga koy jënde fii Thiès mën na bañ bokk ak li nga koy jënde Dakar mën na bañ bokk ak li nga koy jënde Tivaouane xam nga lu tax man ko mu ni ma un kilomètre de goudron bi ngay jaarali fii nga xam ni benn benn suuf la sax da ngay ñëw rek fàkk def euh, xeer yu xonq institution defar jàll kilomètre boobu li muy jar bokkul ak kilomètre bi nga xam ne jëlal fu mel ni corniche bi xam ne bi ñu koy defar da nga indi ay engin ñu toj xeer wi xotti ku ci digg bi pour man fa jaarale goudron wala muy foog a xam ni ay engin ngay indi loué ay tracteur di leen fay deux cent cinquante cinq cent mille francs par jour ou par heure jëli leen Dakar par exemple yóbbu leen Thiès ñu ñëw di buddi ay garab di daaneel pour nga mën a defar tali bi donc da ngay gis ni prix bi li muy jar fii mën na bañ a jar fa mën na mën na bañ a nekk le même prix bi waxuma ni cas bu la la mais li may rafetlu en tout cas mooy même bu dee ne am na loo nga xam ne jubut ci contrat yi ngay wax ni yëpp am na ñuy taxaw am na ay corps de contrôle yoo nga xam mën nañ taxaw ni lii kat jaarul yoon ñu dindi waat ko que dañ ko seetlu lu baax mais ci côté boobu Sénégal mi ngi def ay ay jéego yu am solo maintenant dafa am loo nga xam ne c'est purement de la politique politicienne mooy dañuy am li ñuy wax diaboliser nit maanaam nit ki dañ koy jël di ko taqal di ko taqal ba moom ci boppam day dem ba yàgg muy dute ni mais est-ce que li ñu may waxal du dëgg et je sais que bari na ci réew mi ñoo nga xam ni loolu la ñuy doxal te li ci gën a doy waar ci loolu mooy ñi ko ëpp ñi ci ëpp ci ñi koy def ñu nekkoon ci yëf lañu bañ ci nekkee li ñu def lépp dafa baaxoon muy contrat pétrolier suivez mon regard ñi ko doon signé ñi ko doon négocier muy ay décret ña ko doon signé ña ko doon négocier nekkoon ci biir régime bi ak kenn koo nga xam ni lijjanti woon na ba am benn financement à amoon ci benn pourcentage bu am solo c'est pas un chef de parti politique je le précise mais mi ngi ci paysage médiatique bi amoon ci lu am solo mu ñëw indil ko état de Sénégal parce que bu ñu signé woon contrat boobu euh, dëgg la Sénégal dana ci am un financement mais moom amoon na ci pourcentage ba nga xëy ne mënoon dem tëddi dootul liggéey bi mu ñëwee gouvernement Sénégal di ko ñun am nañ lu gën lii yow boo ñuy proposé par exemple 3 pour cent ñun am nañ 1 pour cent wala 0,5 pour cent jëluñu ko depuis loolu mayetul Macky Sall jàmm mayetul gouvernement du Sénégal jàmm te loolu ñu nekk dans le milieu xam nañu ko donc nit ki buy me buy ligg xam nga man damay wax toujours nii bu la neexee tey faralal Macky Sall suba àndal ak Abdou Diouf ginnaaw suba àndal ak Senghor yaa xam mais ci principe yi ngay doxal li ngay bañ ak li ngay bëgg war la soppeeku. parce que nit ki mënoonu tey dafa ñuul suba nga ne dafa weex ce n'est pas possible donc loolu mooy li nga xam ni moo am tey ci réew mi ay nit nga xam ni parce que bu ñu xamee ni mënuñu la jaar fenn pour attaque la dañuy jël benn stratégie mooy loo def ñu ni baaxul loo def ñu ne scandale te loolu bari na ci réew mi actuellement. là aussi am na solo dañuy dugg nag ci beneen euh, pàcc te mooy que ni gis nañ ne jamono ji ndakaar ak li ko wër amul ndox ñu buggoon a xam tey jii yow ban analyse nga def ci wàllu woowu. na nga dugg sama page Facebook avant ngay ñëw publier naa ci benn article di sa di ñaawlu li am tey te li ci gën a ñaaw mooy kenn génnul wax ak sénégalais yi lu xew année le ministre bi nga xam ne moo chargé wu loolu bu dee loolu nañu nanguwaat ndox mi delloo ko na ko ña ko yoroon ndax mu tane parce que jéem tële gàcce newu ci te it booy dem ba xamatoo fi nga jëm dangay dellu fa fa nga jóge woon man maa ngi lancé ak ay xarit suma ay xarit yoo xam bokkuñ sax parti politique ñenn ñi sax nekkuñu ci ay parti mais ñu ngi organisé wu comme temps bi xëy na kenn mënul def ay ay marche ak ay rassemblement ndax corona bi ñuy dund nii mais au moins danañ lancer une pétition pour que loolu jeex parce que mënuñu accepter boo duggee tey ci dëkk yu mag yi fu mel ni Dakar nit ñi amuñu ndox ñu dañuy wax ay sitar la ñuy génn di ko di ko ñu duñu ak duñu ay jur duñu ay xar duñu ay nag yoo nga xam dañ ñuy jox ndox par ay citerne dañuy fay suñu ndox en bonne et due forme soo fayul ñu dagg la te mënoo fexe bañ ravitailler ndox correctement il faut que ça cesse d'une manière ou d'une autre il faut que loolu jeex donc sama position ci question boobu c'est sans équivoque te avant ngay ñëw comme ni mu ko waxee man maa ngi disposition ak ay xarit yoo incha allahu rabbi danañ mobiliser toutes les populations yi ñu ci mën a mobiliser xeex pour que loolu jeex ci biir Sénégal boo demee ci ci ci euh, en zone rurale même problème dafay am. tey dañ naan la tel société la ñuy indil mu di ñu gérer ndox ña ngay xeex ak population bi ña ngay teg population bi loo nga xam ne attanuñu ko te loolu munuñu ko accepter en tout cas la bataille de l'eau jàppal ni bu amee benn combat bu ma ñor man c'est le deuxième combat après le combat sur les euh, sur les terres c'est la bataille de l'eau te képp ku ci mun a ànd ak man ak foo mënti bokk danañ ko ànd mëne ko pour que vraiment ñu xam ne sénégalais du ñu ay xar du ñu ay mbaam du ay ay ay ay nag ay doomu aadama la ñu yoo nga xam ñu ngi respecté li ñu war suñu diggante ak société ndox mi donc ñooñu itam nañu respecté seen seen li ñu war a def suñ seen diggante ak ñoom. je sais pas ci wàllu ndax euh, vous conviendrez avec moi que <laughs> pays émergent loolu kay loolu kay c'est c'est l'évidence boo xoolee et li ci gën a métti li ci gën a métti je pense que le président Macky Sall war na toog xolam tànk parce que boo xoolee li mu def ci effort ci wàllu ndox. def ko ci électricité def ko ci ay piste utiliser le PUDC utiliser Puma ñu def ci énormément de réalisation mais ay ñoo nga xam ne bugguma la sax qualifié par respect aux internautes ñëw yàq liggéey boobu yëpp ba finalement li sénégalais di jàpp mooy ndox amul ci dëkk bi malgré effort yi nga xam ne gouvernement bi loolu il à moins que mu nekk ñoo nga xam ne ñoo ko defee exprès xëy na loolu aussi di saboter pour daaneel le gouvernement parce que loolu aussi mënuma ko écarter mënuma écarter un groupe un lobby boo nga xam ne aujourd'hui tapis dans l'ombre di organiser wu di saboter tout le travail qui a par le gouvernement uniquement pour daaneel le président mënu ma ko écarter je ne dis pas que loolu la mais mënu ko écarter parce que mënu gëm ni ñu nekkuñu en mesure jox Sénégalais ndox ba mu doy. Euh, jaajëf aussi foofu itam yaakaar ni leer na à présent nag nous allons parler euh, Covid ñu bëggoon a xam dans l' ensemble ban appréciation nga def ci gestion Covid 19 par nguur gi. waaw euh, d' abord euh, gis ni bu Covid bi jógee le général en pré en en en l'occurrence le président de la république jël na mesures yi ma jàpp ni waroon na ko jël am na yeneen peut-être toujours mais en tout cas jàpp naa ni jël na ay mesures yu baax le commandant muy le ministre de la santé et son équipe également ñu ngi def du bon travail même su fekkee ni c'est difficile parce que gis nga réewum Sénégal gii am na fi yoo xam dafa dafa dafa dafa jafe. parce que am na nga mënoo ko réussir tant du population bi dañ ci ànd Chine ga mu commencé woon discipline moo tax ñoom ñu mën a régler seen problème très rapidement te boo gisee may jaajëfal le président la République ci question bi bu réew yëpp defoon ni Sénégal kon virus bi du wër ci àddina bi yéen a ngi fàttaliku ba mu génnee en Chine d'abord chinois yi def loo nga xam ñoo ko tey wala tey ñu ko pour man njombe la maanaam musiba la parce que dañu annoncé virus bi 48 heures après ñu soog a tëj fermer zone bi mu nekk mais bañ ko annoncé dégg ngeen ñu bari doon wax naan nañ jëli suñu doom ya fa nekk li tax may jaajëfal le président Macky Sall il avait dit non du ñu jëli étudiants ya fa nekk attaqué nañ ko ci xas nañ ko wax nañ ko ci lu nekk les faits lui ont donné raison mais ña nga xam ne dawoon nañ jëli seen i seen seeni doom mais réew mu mën a jóge ci àddina bi ba ñu jëlee seeni doom confiné wuñ leen dañ leen di jël ba pare libéré leen. ensuite diggante virus bi bañ koy annoncé ak ñooñu bañ leen di jëli muy 48 heures yooyu ma lay wax bari na ci ay nit yoo nga xam moo xam ay européen la moo ay américain lañ moo africain lañu daw nañu génn Chine ba ñu génn Chine également demuñu confiné wu dañu dem continuer seen activité donc loolu moo weesaaru virus bi dans le monde kon bu fekkoon ne yeneen réew yi defoon nañu ni président Macky Sall defoon kon tey. mbir mi du egg fi mu egg l'un dans l'autre egsi nañu ba fii Sénégal a ngi ciy góorgóor di ci def li mu man di ko gérer je pense vraiment ci conditions yu baax ndax li tax ma ni condition yu baax boo gisee ñun la par exemple am na cinq millions nga xam ne am nañ virus bi au moins trois mille wér nañu ba ñibbi nañu seen kër donc li ëpp ci ñi ko ñi ko amoon wér nañu li ci des nag mooy ñun en tant que population ñoo ci war a jàpp di rafetlu liggéey bi nga xam ni kilifa diine yi mais surtout la presse toute la presse sénégalaise mobilisée autour de cette question là imam yi arabisants yi euh, organisation de femmes de jeunes et tout il faut il faut du côté des jeunes am na lu des ci seen engagement pour euh, virus bi mën fi jóge ndax boo gisee par exemple mouvement nawetaan bu jógee nañu ciy def buñ ko defoon ci virus bi am naa yaakaar te dañ ko a stopper donc foofu am na des na maa leen di ñaax vraiment ñu continuer ci la. yaakaar naa ni itam dañuy desandi euh, ci wàllu woowu xëy na wax nga ko mooy que ba fi virus bi duggee président ñu jàppoon ne tamit comme comme ni nga ko waxee rek amoon na solo pour euh, aar li nga xamante ne moom mooy population euh, sénégalaise ci ay jëmi jamono ñu gis ne xaw na gajafal mbir mi est-ce que foofu mënuñ jàpp ne c'est le commandant lui-même qui a quitté le navire de guerre parce que gis nañ ne jamono ji cas yi ñu ngi gën a yokk cas communautaire itam bëri na jamono ji dañ gënoon bëgg ñu confiner nit ñu peut-être mais ñu gën a oyofal mesures yi c'est dire tout simplement que nii <laughs> virus bi mën na mën na mën na dugg ci population bi. xam nga dama la wax léegi ni la réew bu Sénégal mooy réew mu naqaree naqaree gérer dafa am seen benn xarit bu ñuy wax Cheikh sec mu ngi dëkk Nioro jamono yi ma waxee yam mag ngi Congo benn xaritam bu nekk Italie day waxtaan ak benn policier italien mun ko mais Sénégal ñaata région ngeen am mun ko 14 mun ko ñaata président ngeen am mun ko benn mun ko ne yéen 14 président ngeen sax doyu ndax musuma gis nit yu mel ni sénégalais li tax mu wax ko mooy tey li ñu leen tere fii bu subaa moom la ñuy defaat cest à da leen di neex sax ñu tere la dara nga di ko def cest à réew mi kenn mënu li tubaab di wax aimer une chose et son contraire mënoo bëgg dara ba pare bëgg safaan ba bi président Macky Sall di lancer cri de guerre jël mesure yooyu nga wax nii booba Sénégal yu bëri ñi ngi werante naan am na wala amul ñii naan virus bi am na ñii naan virus bi amul même ñii toog naan la amul ñoo la gën a xam ne am na mais sur le plan de la sociologie dafa am lu noo nga xam nit ki su bëggee dara day bëgg forcément nga bëgg ko yow am na je pense que président Wade su ma juumul moom mës a abal benn livre boo nga xam ne waa ji daf ci wax ni mi ngi ko tuddee la rumeur tey bu ñu bu ñu la bu ñu la bu ñu nettalee dara yow nga gëm ko ñëw di ma ko nettali bëgg ma gëm ko pare nga ni ma fekke naa ko non seulement c'est pas que dag may fekke naa ko bu bëgg wax lu amul mai da ngay bëgg ma gëm la ñii toog naa la virus bi amul ñoo la gën a xam ne virus bi am na mais nekk nañ ci soxla bëgg nañu ñu ñu bañ leen confiné bëgg nañu génn dox seen soxla bëgg nañu def yeneen ak yeneen de sorte que bëgg nañu dugal ci bopp ñëpp ni virus bi amul donc ba président Macky Sall di jël mesures yi boo jëlee les seize million de sénégalais xëy na deux ñoo ko ci gëmoon ñuy dem ba gis ay nit di dee nga di ci teg sa bët bis bu yàlla sàkk muy ci biir réew mi muy ci bitim réew donc ñu dem ba moment boo nga xam ni benn ñi ëpp ci sénégalais yi wóor lenn leen virus bi am na ñi ëpp ci sénégalais yi xam nañu yan mesure la ñu war a jël pour moytu virus bi ñi ëpp ci sénégalais yi dundatuñu woon dundatuñu woon mooy tey nawet bi ñëw na bari na woon ñoo nga xam ne ñu ngi Dakar wala ñu ngi Thiès wala ñu ngi feneen war a génn seen fi ñu nekk nii ñibbi seen i kër pour topp nañu seen wàllu tool mënuñu woon a génn kenn mënatul woon bouger ci réew mi mu indi beneen situation sociale boo nga xam ne kenn mënatu ko woon a dékku donc toutes les raisons là bu ñu ko dajalee président jàpp ni war na am confiance ci intelligence su sénégal yi xam nga mesure bi président jël man ni ma ko interprété mooy respect bu mu jox sénégalais yi respecté nit ñi mooy nga jàpp ne li nga xam kat kii xam na ko li nga bëgg ci lu baax gënoo ko bëgg lu baax parce que nag man mi lay digal li ma bëgg lu baax ci yow yow mi ma koy digal yaa ma war a gën a bëgg lu baax ci ci sa bopp donc mu am confiance ci l'intelligence de sénégal mais écoutez tey ñu ëpp ci sénégalais xam nañ ni mbir mi am na ñi ëpp ci sénégalais xam nañ ni nii ak nii la ñu war a moytoo te ëppuma leen a xel gënu ma leen a bëgg réew mi kon war nañu mën a woyofal tuuti mbir yi pour que kenn ku nekk mën a jël say responsabilité am na ñu ko topp c'est vrai am na ñu ko toppul mais boo jëlee suñu kilifa diine jëlal ko mel ni sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ba jamono yi ñu toog amul benn bis boo ko xam ni du génn wax nit ñi ne def leen nangam def leen nangam def leen nangam pour moytu mbas mi nga xam ne am na ci réew bi donc relâchement boobu du nekk du loo nga xam ni war na jaaxal nit ñi au contraire pour man dafa nekk loo am confiance xam président am na ko ci Sénégalais moo tax. Mhm. mais jamono ji face lan lañ war a jëlaat comme xam nga euh, mbir mu nekk danga koy bàyyi ñi ko xam affaire bi ba mu ne càpp ñu taxawal benn comité. boo nga xam ni ay professeur rek ci nekk ay docteur rek ci nekk ak le ministre de la santé ak ñëpp ñi nga xam war nañ ci intervenir fu ñu toll ñooñu ñooy wax président ni ko nañ def nangam ñooñu wax président ni ko lii ak lii bu ñu ko defee moo gën parce que xam nga li gën a bon léeg-léeg nga gis kenn ko jël euh, micro wax ci mbir mi wax joo nga xam ni man su ma doonoon waxuma président de la république mais su ma doon ministre de l' intérieur boo ko waxee keroog kaso koy fanaan parce que doo bàyyi ay nit ñu liggéeyal liggéey liggéey bay bëgg a dee nga ñëw wax loo nga xam wóor na lii lu yàq liggéey ba la <coughs> pardon te tegu ko fenn je pense que du lu jaadu kon man munuma joxe ne nañ def telle mesure je ne peux pas aw ma outil yoo nga xam mun na ma permettre ba def ko mais wóor na ma ni comité bi nga xam ñoo jiite xeex bi lu ñu ciy digal président lu baax lay doon lu war a lu mën a nekk lay doon te buñ ko jëlee aussi am naa yaakaar te danañ gagné virus bi mais ça c'est sénégalais boo fàttali koo xëy na booba booba xëy na yaa ngi raam sax peut-être bi ñuy <laughs> bi ñuy dévaluer le franc CFA boobu yaa ngi raam bu dee juddu nga bon alors <coughs> bi ñu dévaluer le fa ñi xamul ñëpp dañu feebaru ndax dévaluation bi mais sénégalais foo lañ ko defoon ba boo dégloo même am na benn salsados bu ñu wax Mame Pathé Gadiaga jam sa Gadiaga mu créé ci benn kii euh, dévaluation bi sonal nañu nangam nangam ainsi de suite donc Sénégal lu ñëw dañ ko jël foo ko ree ko théâtre ko musique ko et puis on passe à autre chose bon yàlla dañu yàlla def nag mu mu jig ñu parce que li may wax toujours rek gan goo xamul kañ ngay ñibbi mënulaa teree doxi sa soxla te c'est vrai virus bi nekk na lu grave nekk na lu dangereux mais xëy na am na yeneen feebar la ñuy rey virus bi du ko rey te it loolu aussi dafa am loo il faut ñu bàyyi ci xel parce que am na yeneen maladie yoo nga xam ni dañu sonn démb maa ngi am sama benn sama benn goro bu ma doon waxtaanal mu ni ma fa mu doon dem di fa faju ji dafa dem fekk ñu génne malade yi fa nekkoon dugal fa les malades du coronavirus. gis nga ñi nga xam ne dañu def dialyse ak ñeneen ñi ils ont ces problèmes là donc vraiment loolu aussi il faut ñu trouver un équilibre pour mën a may ñi feebar di faju ji mais ñu continuer également di faj ñi nga xam ne dañu rencontrer la maladie. Mhm, monsieur le ministre ba tey ci wàllu coronavirus yaakaar naa ne du ma la bàyyee noonu nga dem euh, ñu gis ne euh, wax nga sànq mo euh, benn moo mooy respecter les sénégalais ñu bëggoon a xam ndax jamono ji jaaduwul woon. personnellement gisoo gisoo woon ne ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Abdoulaye Diouf saar nekk joolim bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram mu génn après trois mois euh, virus bi nekk fi def benn bilan xamal sénégalais yi liggéey bi nga xamante ne ni moom la taxawal ci wàllu woowu. yow xanaa da ngaa tukki woon ah da ngaa demoon màkk ci diggante bi kañ la woon c'était samedi je pense c'était samedi def nañu un bilan. ñëpp ñi nga xam dañu impliqué wu ci affaire bi génn nañu def un bilan mais xam nga trop de communication tue la communication mais gis nga stratégie bi nga xam ministre de la santé moom la moom la trouvé chaque jour ñu génn def bilan c'est quelque chose d'extra c'est génial gis nga bu ñu ko deful bis bu yàlla sàkk sama nijaay jëlee ci kër Farang wala sama baay bële ca yang-yang wala kenn ku ne ca mbëlëxe toog ni la téeméeri mort am na 200 mort am na nga nekk ci di weddi te en communication boo demee ba nga xam ne weddi moo la dese tu as la bataille. ñoom nag ils ont pris les devants di joxe les bonnes informations loo nga xam ne kenn mënu ko contester nag parce que am na sax benn ou deux jours yoo nga xam yaayu une ou deux erreurs parce que dañu jot bilan bi ñoom ba pare am keneen ko dee ci ginnaaw bi même loolu sax da nga gis une certaine presse jël ko en en épingle pour wane ni ah non non ils ont communiqué faux non ils ont bien maintenant li ci des mooy conscientisation sensibilisation bi il faut que ñu continuer ko te gis naa ma di ko profité euh, profité di ko di ko féliciter au passage le sociologue Djibi mu di ji def un travail bu am solo parce que communication day egg foo nga xam ne du rek yëfu état dafa am ñenn parce que am na ñoo nga xam ne yow la ñuy déglu dégluwuñu président dégluwuñu ministre dégluwuñu keneen yow boo leen waxee ñu ne ah comme yàlla bi ko wax dëgg la am na ñoo nga xam xëy na man la ñuy déglu am na ñoo nga xam sëriñ bi la ñuy déglu am na ñoo xam mbëru làmb bi la ñuy déglu ainsi de suite ku ci nekk ak niveau bi nga nekk donc tey dañu nekk ci niveau communication communautaire il faut que kenn ku ne kenn bañ a xeeb sa bopp même booy dox ci mbedd ba gis nit def loo xam jaaduwul sax ci mbir mi nga mën a taxaw gentiment du ordre boo koy jox mais war nga mën a taxaw wax ak ma ah sëñ bi te nga def nangam mën a am mu def ko je pense que bu ñu ko defee ñun ñëpp mën nañ ci